asalaamaaleykum mbokki xarit yi safo di seetaan seen Télé Futurs Médias kontaanati naa di jàkkaarloo yéen ci seen best of de l'Oeil du Tigre nag fas yéene ànd ak Moustapha Gueye euh, ci biir jël bi mu dellu si ci combat bi nga xamante ni moo opposé woon Jordan ak Super Étoile bu fa jógee daal di léewtoo ak suñu professeur de droit boobu di Amsatou Sow bee suñ fa jógee nag daal di déglu maye bi nga xamante ne guy gi ak am ni mignon ñooñu ko andil daal di tëjee nag suñu zapping ci biir làmb ji loolu yëpp nag mi ngi ñëw léegi léegi léegi juste après jingle bi tey nag ci biir jël bi Moustapha Gueye dafay dellusi ci combat bi nga xam ne moo opposé woon Jordan ak Super Étoile daal di koy décortiquer jox ñu ci xalaatu expert am ñu ànd seetaan ko. nekk komba boo xamante ne combat bu doy waar la combat bu neex gis nga booy xool fii Jordan mi ngi mébëgg mébaat bëgg a song. jàppante na ay loxo voilà fii boo gisee Super Étoile dafa envoyé Jordan crochet du droit c'est normal ñaari mbër bu ñu dee bëree nga xool ne ñoom ñaar seen tànk yi dañuy jigantoo maanaam euh, Jordan gittal tànku ndajoor Super Étoile gittal tànku càmm Super Étoile lii mu def loolu la wax def dafa envoyé crochet du droit boo gisee atteindre na cible ñu dem Super Étoile euh, bi mu sànnee droite dafa dellusiwaat ah nga xool ne kon Jordan mi ngi jéem a fayu Super Étoile fi loxo càmmoñam dafa chassé coup bi nga xamante ne moom la ko Jordan envoyé ba tey ñu dem ñu ngi ci bagaar bi en gars yi Super Étoile ñëwaat encore ak crochet droit nga xool ne fii Jordan dafa armé direct droitam pour war ko mun dóor normalement fii direct la war a dóor actuellement pour mu dal Super Étoile ci kanam gi ba ñu dem Spain Étoile mi ngi siggi ba tey nekk ci logique gu combat siggi xool adversaire am Spain Étoile kon nag ñu xam ne c'est un très grand bagarreur mi ngi xool adversaire am ci ay bët donc nga xool ne fii Spain euh, Jordan mi ngi sikki sàkka fi mu nekk nii parce que fii Spain Étoile embarqué na combat bi mi ngi ko maîtriser nga xool ne Jordan fi mu nii réer na ci combat bi ñu dem ba tey ñu ngi ci bagaar bi mais Jordan à chaque fois mi ngi armé direct droit bi mais direct droit bi est-ce que dal na wala dalul ba tey euh, ñu dem dara dalul ba tey ñu ñëwaat ba tey ñu ngi ci bagaat bi fii gis nga encore Jordan sànniwaat na direct du droit bi super étoile mi ngi koy xool ba tey mi ngi yëkkati loxo càmm ñoom di effacer coup yi c'est ay coup bu ñuy ñëw toujours super étoile mi ngi nekk en garde saabu bu Jordan di dóor mi ngi xool nu mu koy jëm effacer taxawaay yi baax nañu fi nekk nii rien à dire vamos. fii gis nga ne voilà voilà fii nag moom jordaan dafa daw jël super étoile boo xoolee ci xeex beeg bi ñu xeex yëpp dangay gis ne kon Jordan dafa bëgg a songi super étoile léegi super étoile contrôlé na ko corne ko ci loos ba pare crocheté loxo càmmoñ ba nga xamante ne ñun image bi mënuñu ko gis parce que dafa nekk de l'autre ñu dem waay eh, gis nga moment bii super étoile mi ngi indi def na changement de pied boo ngeen xoolee commencement combat bi super étoile pied gauche la taxawoon di xeex bi ko daan damee di ko jël mi ngi ko kor ci ba tey crocheté ko fële war ko embarqué nag yóbbu ko di ko mboot ñu dem mboot maa ngi noonu super étoile boo xoolee def na li mu war a def man vraiment super étoile surprendre na ma ci combat bi ma nga xool côté opposé pour mun a embarquer son adversaire ma ngi ko crocheté mais ba léegi ma nga téye loos ba ko Jordan actuellement ni embarqué woon na normalement fii Jordan daanu gi dong la waroon def euh, ñu dem dem nañ ki suuf Jordan ñëw na ak trois appuis ba tey nga xool ne loos ba mu woon ba tey moom super étoile bàyyiwu ko fa mu crocheté nii gis ngeen loxo ndajooru jot euh, euh, super étoile bi fa mu crocheté bàyyiwu ko ba mu ko mbootee bi ñu demee ci suuf dañoo samp mais fii nag dafay gis ne euh, Jordan dafa am puissance dafa am doole dafay dafay jóg ñu dem jóg na voilà jóg na sëq séntu ko sëq gaje ko ca ginnaaw super étoile boo xool fii loxo ndajoor bi mi ngi koy jéem a tànte di ko dugal ci ngembu côté càmmiñu ki nga xamante ne mooy Jordan ñu dem Jordan baaje na ko foofu Jordan ngay jéem a dindi loxo ba gis nga mu ngay jéem moom tamit Super Étoile Super Étoile bëtt na ko gis nga bëtt na ko jàpp tànk bi gis ngeen loxo loxo ndajoor Super Étoile bi fi mu tegu ci tànk càmmuñu ki nga xam ne ne mooy Jordan loxo ba nag ma nga fëra cëp ca suuf ñu xool liggéey boobu ba tey ñu dem gis nga fi mu jaar mais gars yi ñu def benn taxaw seetlu fii booy bëree ku nga xam ne la daf la daf la gën a bien physiquement gën la dëgër musculairement mais lii mooy bëre bi dafa def volte face jargandalu wër jëm ci flanc bi fii booy xool Jordan mi ki ci bi loxo baa ngi ci kaw teewul fenn Jordan sëq euh, euh, super étoile sëq na gaño gi fàqat ko wër ko di ko wëri ndomba fii def ko dem di ko wëri ndomba donc jordaan foog mu déséquilibré tourné pour jéem a jàkkaar ak moom ñu dem ba ñu tourné ba jàkkaarloo gis nga Jordan nag fi am na am na vraiment ndoxtu bu baax parce que jàpp na ca ngemb la ca suuf ba pare loxo bi téye ci bicepsu fi nga xamante ne moom mooy super étoile waaye nag tànk bala